asalaamaaleykum daleen nag jàmm ci xarala académie mbokk yi siraan xarala tey suñu tutoriel ñi ngi ko jagleel benn application boo xamante ni mi ngi si téléphone yëpp ñu naan ko application YouTube application YouTube dafa def benn mise à jour bu am solo mise à jour boobu tamit dafa am ay fonctionnalités yoo yu bëri rek si yokk am na si ñaar yoo xamante ni bëgg naa la ko si wan tey bis njëkk mooy première fonctionnalité bi mooy mën nga seetaan vidéo yi sans am connexion. benn bis topp mooy vidéo YouTube mën nga ko partager ak say contacts yoo nga xamante ni sa téléphone la nekk léegi ñu dugg si YouTube ngi nii application baa ngi nii YouTube nga dugg léegi boo duggee euh, signe bi mu lay njëkk wan moo nekk signe bi mooy signe partager bi léegi bi mu njëkk wax mooy euh, bu nee na nga bëgg a yi sans connexion gis nga hors maa ngi or connexion boo xoolee suuf léegi boo ñëwee comme boo ñëwee ci say vidéo dina la wax vidéo hors connexion mii nii vidéo or connexion gis nga vidéo sama vidéo hors connexion gis nga connexion bi activé wul réseau wifi bi activé wul connexion bi activé wul te mu ngi dem voilà léegi nii ngay def am ko mooy lii euh, pour nga activer ko comme léegi il faut nga am connexion nag première fois foo nga am connexion nga daal def recherche boo recherché benn vidéo comme par exemple euh, Euh, par exemple ma ma bës benn vidéo léegi vidéo bi nii bu nekkoon dama ko bëgg a seetaan sans connexion il faut nga ñëw signe bu ndaw bi nekk fii nii nga bës ko nga daal di choisir euh, kii bi nga soxla comme par exemple xam choisir faible bi nga nga nga enregistré léegi vidéo bi day enregistré wu bu enregistré dana la wax si kaw ni la vidéo enregistré comme léegi vidéo bi mi ngi nii bu enregistré dala koy wax léegi boo amul connexion da nga koy mën a seetaan gratuitement voilà loolu mooy première fonctionnalité bi nga xamante ni bëggoon nañ si ñëw deuxième euh, fonctionnalité bi mu nekk partage vidéo comme léegi bu njëkk boo doon amul woon lii euh, mise à jour bi bi ñëw si woon léegi comme sànq lañ doon def rek comme ñu dugaat ci vidéo bi bu dee partage bi mën nga ñëw fii nii partage nga wàcc ba suuf wala nga kilika ci léegi da indi sa contact yi nga xamante ni moom nga am sa téléphone comme man par exemple contact yi ma am ñu ngi nii si kaw bu neex nga ajouté beneen contact fii nii comme ajouté bul neexee tamit euh, nga nga copier lien bi bu la neexee tamit nga envoyé par Bluetooth wala wifi direct mu nekk mise jour bu am solo ma leen di conseiller gars yi képp koo am nga YouTube nga daal koy mise à jour léegi mise à jour pour nga def ko lu yomb la boo ñëwee sa sa Google Play maanaam Play Store mën nga ñëw fii nga bind euh, YouTube YouTube mi ngi nii. léegi pour nga mise à jour da ngay bës rek mettre à jour mu mise à jour pour nga mën a am fonctionnalité yëpp mbokk yi li moo nekkoon suñu tutoriel bu tey ma yaakaar ni jariñu ngeen bu baax di ñaan ngeen partage chaîne bi daal si abonné merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel.